asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu yeen ñep di content trop si mobilisation bu exceptionnelle bi ñu def tay ngir fatali le président Macky Sall ak le gouvernement du Sénégal que Sénégal moom mo leen ëpp doole te def leen transcender monsieur le président de la République yow yaa ko wax conviction républicaine ne à Gassi 2024 élection yoo xamante ni doo ci bokk moom am kon la Sénégalais yi mobilisé wu la diaspora sénégalaise ngir en 2024 ñu am un président boo xamante président bu am solo lay président boo xamante ni du nangu li am ngor am président boo xamante ni du nangu li am

wa senegal dañ koy jëriñu té loolu ñun ñi la ci Sénégal yaakar ñun ñi la ci askanu Sénégal yaakar moy Sénégal bo xamante ni dafay réconcilier avec ses pères fondateurs et ses valeurs fondatrices dara du ñu téye kenn du ñu téye Sénégal rek mo mo ñu ñor té lu taxaw ci suñu kanam dañuy jaar ci ko am jàll. Inch'Allah, le 25 février 2024, nous voulons le président Macky Sall qui palais tout le Sénégal Mangi ngi di gërëm baax leen vous calmez-vous calmez-vous. bàyyi leen nit ñi ku bëgg a ku bëgg Thank you.